delloo njukkal euh, Aïssatou Diop Tall moom moo ñu jàngal euh, élément boobu comme ni ñuy delloo njukkal sunu ñawkat muy euh, Baara First Class Bassirou Diomaye Faye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Tunkara di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi seetaan monsieur. boobu gis nañ ko président Wade bi mu dikkee li mu wax ñu hmm. naa <laughs> waaw professeur bisu ngoon nga waroon njëkk a jox ma commenté ko wante bàyyi mën ma jël sama wàll ba pare non professeur je pense que xam nga tamit il faut qu'on soit qu'on soit raisonnable il ba pare ñaareel bi mooy xam nga mag moom dañu naan mag buur la mhm. te dañu daan officiellement il a quatre-vingts ans passés wante xam nga ne boo xoolee kayit ya ëppale na at yi ñuy wax ne moom la am bu ñu xooloon rek li nga xam ne ba tax na man professeur vraiment man position bi nga xam ne ak déclaration bi nga xam ne mooy président euh, ancien président du Sénégal président Abdoulaye Wade nekk Pape du Soppi ak lépp lu mu def ci ci Sénégal am na kàddu yoo xamante ne bu ñu yegsee fii mënee suñu ko mën a déglu ak mënee suñoo mën a jëfee ci lii nga xamante ne moom lay woo Sénégalais ndax nu mënuñu yegg fii ci processus ba pare nga ne nit ñi nañu lakk bulletin yi lakk seen carte directeur loolu du loolu moom xalaatuñu koo def mais moom lakkul carte électeur am xaar man man xalaatuma ko def man man ni naa pend fay man xalaatuma ko def. te gisuñu kenn foofu waa PDS ak yooyu te duma ko digal digal kenn autant ñun vivre nañu période boo xamante ne dañ doon dañ doon nëbb carte d'identité suñu maam yeeg suñu parents yi pour ñu bañ a dem votel Abdou Diouf en 2000 autant 2019 bii ñu toog duma duma duma dem dans ce sens la te vraiment nit ñi sensé ñëpp Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo toog yor seen xel ak seen xalaat ba mu mat ak lépp lu ñu bëgg Abdoulaye Wade nag ñun ñëpp ko bëgg def ko suñu xol parce que dafa am li mu def ci histoire politique gu Sénégal lu dul dañ ba faw nekk way woo xamante ne woy woo xam ne dafa yëkkati Sénégal kenn du wax ne Abdoulaye Wade nekkul woon démocrate kenn du wax ne Abdoulaye Wade vraiment def na fi loo xam ne amul benn leader politique ci histoire Sénégal bu ko def mais nag kantaa nag lakk li nga xamante ne mooy bulletin yi moom góor gi moom dañuy ne rek waxu maam lay wax danañu ko jàppee noonu <laughs> léegi nag beneen bi ma ciy doole professeur mooy nii toll nañu Sénégal foo xamante ne dafa nekk réew moo xam ne ak li ñu am ci suñu histoire politique mosuñu ñu déggal coup d'état mhm. mosuñu ñu déggal liy am ci yeneen réew yi ci Afrique yëpp am na situation xam ne buñ ci tollee waruñoo yee fitna ah, parce que dañu ne mag mat naa bàccim réew li Amadou Hampâté Ba doon wax un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle mais dans ce pays où on avec la situation qu'on est en train de vivre je pense qu'il y a une autre position à avoir te ñeneen ñi nga xam ne ñoo yor suñu at yi professeur war a réfléchir neneen dañu leen di ñaan ngir yàlla ñu xool xam ni réew mi ñun ñoo ko mbokk benn gaal la kenn mënu koo xar ñaar te bu lakkee ñun ñëpp ku si nekk da nga wut foo jëm la preuve moom njabootam ak sët ak ay sëtaatam ñoom nekkuñu Sénégal donc ñun bu lakkee ñun ñii fi am ay mbokk ay maam ak ay maamaat ak ñun ñi nga xam ne ay sët lañu ak ay sëtër dañoo bëgg a des ci réew mi nekk ci jàmm ak salaam loolu rek laa ci amoon lu ma ci sànni. Bijou yow euh, Nina waxal na la. waaw naa war a lépp te xam nga damay doxee ndigal parfois boo waxee damay déglu li ngay wax. moo tax tey moom damay fair play rek. xam nga mag moom lu wax dañ koy bàyyi. nit ki di nga toll ci benn âge boo xamante ne boo waxee dañu jàpp ne ay léeboon la ak ay dippoon. loolu lii léeboon lippoon. oh <laughs> professeur nañ bàyyi noonu rek xam nga nit di nga toll ci âge boo xam ne naax la lay daal. mën nga naax. non mais lii du naax. parce naax mooy kuy eh, ñun ñu ay citoyen war a am carte électeur nga ne nañ ko lakk. naax ci la bokk ci ay signe naax la. non mais loolu moom euh, maanaam day wane ni que dafay opposé wu si processus bi. opposé wu si mais on de façon très loyale. mais pas. waaw nii baal ma bijou. mais tamit loolu dama foog ni waxin la rek prof non am na façon bu ñu mën a opposé wu. ak leneen lu ñu ci mënti wax nañu wax dëgg rek te yàlla tax. ñoom li ñuy reproché Macky Sall mais Macky Sall élève ab Ablaye Wade la te moom moom sax loolu li ma ko jàngal moom la appliqué léegi nag liy wax bi mooy ndax ni mu ko appliqué lépp li nga ko jàngal ci li mu jël ci lu baax ak ci lu bon yëpp lépp lay appliqué mais li ñu mën a wax mooy hmm. c'est un élève de Wade man du ma wax c'est un fils parce que politique amul papa ak yaay ak doom hmm. boo ca xasee dugg papa ak yaay ak doom amatu ci mais élève am la mi ngi appliqué li mu ko jàngal te mi ngi koy appliqué na mu ko waree ak la mu yëpp est-ce que mën nañ jàpp tamit ne que waxin la rek parce que président Wade Euh, su fekkoon euh, affaire u lakk carte d'identité dëggantaan la kon moom si boppam da jël carte d'identité am sotti si essence taal ko wala mu ne waa euh, kilifa PDS yëpp jël leen seen carte d'identité wan ñi ni ko da ngeen ko taal dama foog ni waxin la rek ajara waxin la rek. waxin laa ko mën a jàppee vu que bu ñuy wax Abdoulaye Wade xam nañ ko bu baax ci rôle yu mu doon joué par rapport ak yeneen dëkk yi nga xamante ne daan déplacé dem foofu ngir ndox jàmm donc man. je te si si côté boobu. doyen loolu deux points benn bi mooy comme France bi ñu defee Victor Hugo père de France. Mm. c'est-à-dire on lui pardonne tout parce qu'il a tellement fait pour la France. Mm. il est tellement grand. Mm. que dañ ko nommé père de France il pouvait tout faire. même yéen ñaar su ngeen àndoon mu def du banditisme ngeen defandoo ko yow la ñuy condamné moom ñu bàyyi ko compte tenu attention yi compte tenu de sa grandeur compte de sa grandeur ça c'est un deuxièmement moi je parle sur l'état psychique de Wade man dans son inconscient il est quelque part il se dit quelque part responsable de la situation de Karim parce que Karim n'a jamais été politicien connu qui s'est battu c'est Wade qui l'a pompé et qui l'a dit dans la dans sa tête que yow mën nga nekk lii bëgg ko def loolu ba koy présenté sax comme son futur successeur dans certains pays yooyu yëpp presque daan la ci wax donc moom douleur boobu en tant que père de famille jàpp ko mënu toog noonu moo tax à 93 ans il aura l'énergie il continuer pour ñu libérer Karim maintenant non ah, dégguma dafa yegg benn niveau c'est psychologique ah, xam nga quelqu'un qui a un problème psychologique arrivé benn niveau c'est pas la morale comme ça qui va le hmm. dafa nekk ci benn état état boobu nag moom mooy man par exemple je te su ma nekkoon place Macky Sall dama naan Karim du participer élection mais na ñëw Sénégal saa yu ko neexee hmm. gis nga loolu soo ko waxee du waxat sax waxu politique day bàyyi parce que loolu moo ko intéressé. C'est le, c'est le truc moral, le choc moral de Karim. Ouais. en Wade et il continuera à dire mais des choses ñoo ko signé de conditions yi ñu nekk ñoo ko signé. Oh, gannaaw gi kàddu yi nga xam ne maître Abdoulaye Wade yëkkati na ko léegi maintenant chacun est libre am ci euh, appréciation bi ni nga ko waree parce que comme ni nga ko waxee bu fekkoon il était moom mooy ñëkk a lakk mhm. carte bi nga xam ne moom mooy sa carte électorale. non non c'est pas sérieux carte électorale. kilifa gu toll nii. mu war a wax ngeen ne il n'est pas sérieux. waxin la rek mais Ablaye Wade toog na fi tam ñu dem mu président de la république dëmm donc xam nga ni loolu ay dëmm yooyu amul voilà ku dem waaw ku dem ba toll yenn yenn âge mais en tout cas sur le plan politique parce que gis nañ quand même ba mu ñëwee li mu drainer ci foule. Mm-hmm. maintenant reste à savoir ba xam foule bi nga xam ne moom ngay drainer sur ton passage ñoom ñooy. de déstabiliser le Sénégal. mais bon Khadija moo fi amoon ci législative moo fi amoon ci législative moom moom sur le plan politique kenn mënul naa table. tolluwaayu euh, la preuve moom mooy sax ñu ngi doon wax ni Macky Sall ba mu yëgee ni maître Abdoulaye Wade yegg si na dafa commencé woon di patiner est-ce que c'est vrai ou c'est pas ou c'est pas vrai euh, mi ngi noonu mais maintenant beneen mbir duggaale ci bijou moom mooy que ni Sénégal quand même yàgg nañoo am ay alternance yàgg nañoo def ay action yàgg nañoo am ay élection mais yog yenn degré de violence yi quand kenn mënu see mësu yee mësu see yegg donc je pense que du ñu bàyyi ba tey quand même si on dit tout le temps et qu'on veut que ñu dégager quand même benn tranche politicien yi fi nekk indi beneen nouveau indi lu lu bees mais c'est pas en brûlant des cartes d'électeurs qu'on va le faire parce que loolu boo ko defee rek man je pense que ni da ngay jàppale Macky Sall te ñu bëri jàpp nañ ni Ablaye Wade li muy def nii c'est du cinéma mm. mais en quelque sorte dafay jàppale Macky Sall parce que Macky Sall am deuxième mandat moo koy arrangé mm. parce que bu fi Macky Sall toogaatee benn mandat la fiy toog après Karim pourra se présenter aux ah, prochaines élections euh, législatives euh, waaw man de góor gi dama ne yàlla daal may na ko ah, ah. am na ànd naag mayu yàlla man nit ku mel ni mosuma koo gis ci àddina. quand même euh, man bayre bi xaw ma fan la ko jëlee. parce que nu muy gën di jëmee mag. Mm, mm. nit ñi di ko gën a bëgg. Mm. bon man ci moom laa njëkk a wote ah. mu ngi noonu man moom ci laa ci laa xamee wote. mais yal na ko yàlla gën a may fanu gudd ak wér-gu-yaram. mais defe naa sénégalais yi aussi euh, ràññee nañu. kii dafa bëri xam-xam de paa bi. li muy wax du ko def. mais xam ne ni muy wax ak yi. mais du fi lakk dara kenn du fi lakk dara benn sénégalais mhm. du fi lakk carte d'identité yooyu yii wax yi ni wax ju neex la rek dégg nga yooyu yooyu yooyu xoolal man fi ko nit ñi di yóbbu sax euh, vraiment yeggu fa amu fa solo mhm. moo tax parti politique yi yëpp cinq parti yëpp kenn joxul joxu ko benn importance mhm. li am solo pour man ci wax ji fii nii attention nag non non non nii naa euh, professeur xam nga li mu wax ni joxuñu ko importance li ñuy wax mooy candidat coalition bi bu dee jox ko importance tamit démb mitikam bi mitingam bi mu doon def defu fa yé de déclara discours am bi matul 7 minutes ci la yem. te lépp da ko mosu ko def te ba pare ñun tamit ay journalistes lañ di observer image yi di ko xool. professeur am na impact li Ablaye Wade def démb ci réew mi am na impact. ba am na impact ci candidat bi nga xamante ne moom mooy. président sortant di laajaat mandat réew mi pour deuxième am na bàyyi imaam nga baal ma euh, jàpp naa ne benn baal nañ la euh, imaam benn sénégalais fi làkk carte électeur loolu moom du ngeen ko fi gis ci kàttanu yàlla bon li ci am solo nag pour man dëgg-dëgg euh, ñëpp war si jàngat mhm. lu tax mu bàyyi fi candidat yëpp tudd Ousmane Sonko mhm. ba pare tagg ko dafay di ka rencontrer waaw mhm. tagg ko pour man euh, ak lu mën a xew Ousmane gañe na ci. Mhm. Mhm. parce que li ñuy tuddee tazkiya ci arab maanaam daf ko sellal ci kanam àddina bi. bon léegi nag ñoom ñaar ba fan lañ mën a yegg ndax buñ demee ba ci cëppaandaw gi day ànd ak Sonko walla déet mais ni ni ni Idrissa ni kii ni Idrissa gañe ci xalifa sàll noonu la Ousmane Sonko gagné ci Wade ñëw Wade gi ki ci ëpp lu ci gagné. mooy Ousmane Sonko pour man. Euh, jàngat bu am solo mais euh, am na loo xam ne tamit war nañ ci euh, delloo njukkal Sénégal yëpp ndax daaw non asafla 2012 bi ñu fi def élection ay nit dee nañ fi. Mm-hmm. ñu bon bon fukki nit ak ñaar dee nañ. te ren ji alhamdulillah loolu kenn dégg ko fi ñu ngi ñaan loolu euh, mu wéy di dem ba ay affaire ay élection nit di dee loolu Sénégal euh, weesu ko euh, basiru Diomaye fay yow yaay coordinateur national bu cadre yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Pastef bu président Ousmane Sonko tey yow ban ban jàngat ngay def ci mbir mi di nuyuwaat rek ñu ma bokkal euh, toll boo ko gëm-gëmalee 2012 ci même nga gis ne. ah euh, dafa mel ni euh, micro dafa dafa am. Mhm. dafa am tuuti jafe-jafe. sunu beneen gan Valdiodio Ndiaye Valdiodio Ndiaye moom xam-xam dafa màcc si wàllum élection. Euh, ñu muy tëddee Valdiodio ñu ngi lay nuyu la ziar. maa ngi lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp. Valdiodio euh, élection 2019 yi ñu nar a def 24 février yi bu soobee yàlla dafa mel ni bu ñu xoolee euh, li fi jot a am diggante ay 2007 2012 ren violence yi si la gën a néewee loolu lu am solo la. waaw c'est vrai que loolu li tax constat boobu ñu mun ko def pour ren. ne violence bi dafa wàññeeku parce que boo ko méngaleeg 2007 ak 2012 damay faral di wax naan 2012 c'est bizarre à part problème mu candidature Wade c'était le processus électoral le plus consensuel de l'histoire du Sénégal ñëpp déggoo waaw déggoo woon nañ lépp ba mu des benn point mooy maanaam point problème mu bulletin unique hmm. loolu daal moo doon moo leen féewale à part ça dans le fond à part candidature waat boo ko si seppee ñëpp dañ déggoo woon si affaire boobu mais bizarrement 2019 ak contradiction yi mu accumulé yëpp avant processus électoral bi sax di door mooy maanaam entre élection législative 2017 mhm. ak processus électoral bu 2019 da ngay xool ne malgré ça amul violence lu tax ça dire que mun nañ jàpp ne Sénégalais yi de plus en plus dañuy gën a mature sur cette question c'est-à-dire géopoliticiens yi hmm. et puis de plus en plus sànq am na kenn koo fi wax mu ne amu fi euh, jarbaat mi xaw ma doom mi hmm. nekk ñu fi affaire yi de plus en plus on peut comprendre que les le citoyen sénégalais day ne dafa am léegi benn posture républicaine c'est-à-dire day ne problème bi jarul nekk ci mbedd bi di xeex di kii. Hmm. problème bi il faut le régler dans les jours. bu heure vote jotee. jotee ñu régler problème bi donc mun nañ ko jàppee noonu analyse bi mun nañ ko jàppee noonu et puis aussi am na si rôle bu ci média yi joué parce que par exemple on a su exploiter positivement c'est pas très correct de le dire euh, yenn disparition emblématique yi ñu amoon en 2012. ba léegi da ngay da ngay dégg en récurrence ñuy wax naan par exemple euh, ñooñu ba léegi seen dossiers yi réglé guñ ko. Mhm. donc ku dee yaay perte. <laughs> donc affaire boobu moo tax. subconscient wu nit yi da ciy ah. dugg. ba nga xam ne de plus en plus les Sénégalais sont convaincus que les questions. euh, d'accès au pouvoir il faut le régler par les urnes pas ailleurs. et euh, pour dëggal Val Diodio Ndiaye. Euh, loolu dañ si delloo njukkal ñoom Xaarim Gajaga ñoom Gabar Singh. Gabar Singh fii ci Géejawaay ñoom dañuy dem dox dem ci écurie yi. Mhm. waa mbëri. Mhm. ne leen bu leen nangu. Mhm. kenn jël leen di leen def nervi di leen fay ay juróomi junni. pour ngeen ni dem di euh, tayle seen bakkan. gis nañ fi Njaga Juuf. suul nañ ko dëjal ko. nakkal ko furaas <laughs> ba tey ji waa këram rek a perte donc mm-hmm. loolu moom ñu ngi si woo ñu ngi si woo ñëpp vraiment euh, ñoom père Birahim Ndiaye vraiment per yu yu ko jot bu ne moom non ñun fii mu ne ñun suñu équipe ku fi doon nervi ñu dàq la mm-hmm. loolu moom duñ ko fi nangu fulla ak fayda euh, dañuy dellu si waat si Bassirou Diomaye euh, tey yow jàngat bi nga def si yéen tey candidat ngeen euh, di ngeen bëgg nekk euh, jiite réew mi euh, ginnaaw 24 février tey ban jàngat nga ñu defal ci situation déjà <clears throat> par rapport ak observation ci wàll jooju def déjà j'ai souscrit carrément mm-hmm. mais peut-être ci beneen angle sorantewul nag mais boo xoolee ñi taxoon ñuy xeex xeex yu métti yi place de l'Obélisque ba ay bakkan di ci rot bu ñu demee ba ñu jëlee ñi ñu doon xeex tey boo jëlaatoon équipe campagne yu Abdoulaye Wade bu 2012 nga comparé ko équipe Macky Sall tey doo ci am quasiment différence bu mag kon bu fekkee ne nit ñi dañuy xeex pour démocratie mu am ñi ciy dee te ñi ngay wàccee balaa mandat bi di jeex daanaka bu xoolaate ci même camp sax mën na jël le même directeur de campagne du Wade bu 2012 kon nit ñi à un moment dañuy banque seen loxo dese benn recours boo xamante ne mooy recours dem voter mais loolu signifie wul non plus que bu ñu demee ba voter ba seen volonté exprimé wu que dinañ nangu kenn ku ko foqati c'est ça le grand danger de l'interprétation bu ñu mën a am tamit sa à dire bu nit ñi gis dal gi ñu gis nii. fekk na xëy na seen mer ñu ngi ko téye di xaar fu ñu ko fajee ci. Euh, jour élection yi. mais ñu ñaan yàlla ne élection yi jaar na yoon ba yooyu jiixi jaaxa amul. non même pas c'est au contraire ni mu ko waxee mooy Euh, processus électoral bu ñu conduire nii c'est le consensuel parce que fu ñu jaar yëpp waxtaan amu ci fu ñu jaar yëpp waxtaan amu ci xeex nañ fi parrainage ci mbedd mi pendant toute la journée xeex nañ fi yeneen xeex ci biir ci ci ci conseil constitutionnel ci ay question majeure yoo xamante ne mosuñu ci amee consensus li ci am yëpp dañu ko forcer en tant que opposition léegi euh, tey yow euh, lan nga buggoon mu leer si bopp ñëpp si seen candidat Ousmane Sonko li ma bëggoon mu leer ci bopp ñëpp ci candidat Ousmane Sonko mooy programme bu mu àndi te mu tudd ne jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci je pense que loolu dafay àndiwaat égalité ak démocratie participative maanaam ku nekk yéeg na citoyen nga mu am lu la war ci réew mi am loo xamante ne tamit sa yeleef la te état bi nga xamante ne moom moo yilif ñëpp uuf ñëpp war a doon koo xamante ne mooy distribuer cette justice la sur le plan institutionnel économique ak social. loolu leer na euh, loolu la ñuy euh, tàmbalee euh, ni naa penda loolu si. waaw man dama bëgg ñu dugg dans le fond. parce que mhm. comme ñëw nañu te ñoom ñoom ñi tëgg programme bi ci lañu bokk. li am nañu sañ-sañ laaj Basirou. Hmm. ñoom lan mooy offre bi ñuy defar Sénégalais yi bu ñuy wax ci xam nga président Macky Sall ak président sortant bi. candidat bi nga xamante ni ñoom ñëpp moom la ñu bëggee jëlee ci ci nguur gi bëgg ko remplacer dafa teg li ñuy wax plan Sénégal émergent yoonu yokkute devenu plan Sénégal émergent ñoom lan la ñu proposé Sénégalais yi euh, ci li nga xam ne mooy wàllu koom ñaareelu laaj bi ma ko bëgg a laaj parce que xam nga ñu ngi wax sànq di jàngat li nga xamante ne moom mooy violence bi mm-hmm. mais quand même seetlu nañ ne ñoom déclaré nañu wax nañu te gis nañu image yi ne ndar dañu attaqué seeni militant euh, Louga démb dañu attaqué seen militant léegi yéen nan ngeen seen euh, seen bi saccagé nañu ko ñu bëgg leen laaj yéen nan ngeen seetee ne noonu ngeen war a mën a régler problème bi lu dul ne bu ñu defee daañu fayu loolu bëgg naa tamit Basiru wax ñu ci dara beneen ponk bi nga xam ne bëgg naa ko indi aussi mooy ñoom politique sociale bi ñuy wax ne moom la ñu ñi fi nekk di laajaan nguur gi teg lan ngeen gis ne ak lan ngeen tëgg ci seen programme ne loolu ngeen di remplacer lii fi nekk déjà parce que gis nañ ngeen di critiquer bourse bourse euh, familiale yi ak CMU bi ñu bëgg xam yéen à la place lan ngeen di teg professeur par rapport ak euh, turu programme bi lu ñëpp bokk ku ci nekk daal di ci jot si je peux m'exprimer ainsi bëgg naa mu ñëw ak ñun ci programme yi nga xam ne moom lañ fas yéene jagleel auto emploi des jeunes parce que nekk na problématique boo xam ne nguur yi fi jaar yëpp ku ci nekk jéem nga ci indi sa saafara mais dañuy gis ni concrètement sur le terrain ba tey mbir mi lay des beneen bi ci nguur bi ak nguur yi ñu génn ñi dañ koy daan joytu moom moo jëm ci wàllub justice dañuy wax sax ni li ñuy ñaaw lu moom mooy mainmise bu pouvoir exécutif am ci judiciaire bi loolu tam bëggoon nañu Sonko moom mi nga xam ne peut-être en un moment donné il a été victime de ça lan la ci programme bi fas yéene euh, jox beneen bi nag peut-être du bokk ci programme bi mais comme day def actualité bëggoon nañ ko ko jébbal mooy li nga xam ne euh, ñu bëri comme ni ñu amee coalition Idy gis nañ ni ñu bëri ñu ngi formé ay coalition mais Ousmane Sonko dafa yëkkati yoo xam ne peut-être jeunes yu bëri ñu ngi koy rafetlu mais ñu bëri tam jàpp nañ ni loolu daf koy xaw a handicapé moom mooy ni euh, ñi nga xam ne bëgg nañ ko rejoindre ci coalition bu ñu xaar bu keroog bu nekkee président mu partagé ak ñoom li nga xam ne moom mooy gato bi donc loolu est-ce que du ko handicapé au lieu de de lim ci xaarandi benn bi pour terminer moom mooy ni ki ëllëg <laughs> ki ëllëg la fas yéene daje ak ki nga xam ne moom mooy maître Abdoulaye Wade mais moom dans dans ses convictions il combat un système comme système bi nga xam ne moom moo fi nekk et on sait que Abdoulaye Wade il fait partie de ce système s'il n'est pas le père de ce système là est-ce que du nekk un peu contradiction seen rencontre bu fekkee on attend ce que Abdoulaye Wade mu mu rallier wu ginnaaw Sonko. Euh... Abdoulaye rallier Guinaw Sonko tout un programme. tout un programme <laughs> waaw doyen Daouda Diop. moi je voulais commencer par une petite chose. Abdoulaye Wade n'est nekk ci. Hmm. mais c'est le même système. qui nous guide depuis. je voulais un peu pour ñu wax ni moom mooy système bi. Hmm. beneen bi ma bëgg wax mooy je n'aime pas que participatif mooy ngay tàccu. Hmm. mooy sa intérêt. ak sa ay besoins spécifiques. mu bokkaale ca la ngay participer nga tabaxandoo ko. Mhm. donc tu deviens un citoyen ou une citoyenne buy construire son pays. Mhm. alors je ne suis pas convaincu de tout est-ce que Sonko cet aspect d'inclusion. Mhm. surtout de la jeunesse parce que on a besoin de créer. ay centaines ay deux à trois cent mille emplois par an. et pour man je suis convaincu comme qu'on le peut au Sénégal parce que même si ñoo bébé dañ koy importer. donc li ñu mën defar suñu bopp bare na. Mhm. Sonko qu'est-ce qu'il va faire en matière d'emploi et pas emploi par état bi di leen jox emploi. Mhm. emploi par l'auto-emploi mais par des systèmes de crédit pas de misère. Mhm. comme des microcrédits des femmes ça ne crée que la misère. mais de crédit substantiel avec des équipements qui permettent de produire en masse ba Sénégal devient un pays producteur en net bañ nekkati importateur en net man loolu la bëgg mu wax xaalis si mu wax daf koy économiser parce qu'il un programme pour économiser. pour mm. voir les impôts dindi exonération yi c'est une très bonne chose mais l'argent qui est là mm-hmm. kenn dugalu ko à bon escient ci poche lay mujj même fekkee yow nga nekkoon président dugaloo ko sa poche say ñooñ ñoo koy dugal seen poche ba nga obligé di leen tëj mbaa nga def un pardon qui va revenir au système bi amoon mm-hmm. donc man question yooyu la bëgg en matière d'emploi entrepreneuriat féminin d'envergure par la misère sociale mm-hmm. bi ñu confiné femmes par les petits crédit nga xam ni ça ne le permet même pas maximum mm. bon lire naa aussi Sénégal émergent je n'en parle pas sous langue politique j'en parle sous langue sociale en tant que nan lay jëlee en charge les femmes je n'ai vu aucune part dans ce programme et si quelqu'un veut il peut créer un débat ñëw toog où les Sénégalais et les Sénégalais dañ leen jox promotion où les femmes peuvent avoir aussi des emplois autres que jaay ay palaatu ceeb 500 700 mm. au nom des charges ban programme nga wax nii Sénégal émergent je l'ai lu texte j'ai même écrit un texte. de trois feuilles dessus. donc pour man dama bëgg waa PS dama bëgg kii wax ñu ñoom. Parce qu'en parlant des discours et des slogans, il y a la réalité des faits. Ouais, ouais. Est-ce qu'on ne va pas nous amener encore un programme Sénégal émergent ba xam ne les Sénégalais véritables duñ ko gagné. Mhm. ñeneen ñi ñoo koy gagné. Sénégalais yi nga xam ne ñoom suñu participer wu à l'économie du développé wu famille yi du ñu évoluer ñu nekk si ay jaaykatu euh, euh, plaatu téeméeri dërëm ak gerte. loolu laa bëgg. ak mandarine euh, waaw. <laughs> d'accord man bëggoon naa ñëw par rapport ak relation wu Sonko ak presse parce que gis nañ ni que quand même que ni Sonko euh, depuis le début il a été bien accueilli par la presse euh, mën nañu ni que ça tey notoriété bu mu am presse bi joué nañ si bu baax mais gis nañ également beneen wàll que ni euh, bu nee certains yi ñu bëri ñu ngi fustigé comportement bu mu am par rapport à caravane i muy def condition yi nga xamante ni moom la war a remplir par rapport ak sécurité ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi déjà nekkuñu même lieu ça c'est un problème te suñu ay naataangoo wax nañu ko ya a autre chose aussi que ni Sonko euh, am na ñu nga xamante ni bu dee ni sax euh, nekkul en phase ak ñoom ci journaliste am na ñoo xamante ni ay waayam leen aussi ci ci presse bi. comme kan euh, je peux parler de ab de Sadir Top journaliste à la DTV fa la nekkoon temps yi mi ngi Maroc il a écrit un livre intitulé Trajectoire mm, mm. parcours et discours de l'espoir maintenant on voudrait savoir en fait relation wu kii boobu nu mu tuddati. Euh, relation boobu mu am ak euh, Sadikh Top bëgg nañ mu éclaircir ko parce que ni moom il est un fervent défenseur aussi euh, de Sonko dañ ko gis dans ses propos leneen bi mu bëgg ñëw aussi bëgg naa ñëw si seen programme bi ngeen xamante ni ñeen a ngi ko bëgg mu jëm ci wàllum société wax ngeen bu baax également ci li nga xamante ni moom mooy paysan yi plus particulièrement Gossas lan ngeen fo bëgg a tëgg lu tax ngeen jàpp que ni foofu c'est à peu près les parents pauvres puisque sax le ministre Boun Abdallah Dionne Euh, fa la nekk mais yéen xam ngeen ni que euh, wax ngeen que ni euh, dafa am ay manquement yu bëri ci ci gox boobu bëggoon naa ñëw bëggoon naa ngeen ñëw ci nan ngeen nar a soqale gox bi ni mel. donc voilà. merci Adjara. professeur balaa may ñëw ci sama question yi doyen parce que Khadija sànq li mu expliqué juste rek Sonko ci boppam moom moo dénoncé li nga xamante ne moom mooy le système. et que moom tamit c'est lui qui nous parle d'alliance avec Wade donc je me dis que c'est pas cohérent euh, question bi nga bi voilà. rencontre la mais bon rencontre la. pour alliance la ah, bon la euh, te waxoon <laughs> nañu euh, président yi fi jaar yëpp tamit ñooñu mën nañ leen fusiller. mais waxin la professeur ci soo ba tey waxin la ngay wax Abdoulaye Wade waxin la Sonko waxin la kon kañ la wax di jot. duñ taxawal ñooñu di leen fusiller. donc mais kon waxin kon politicien kon. je président Senghor nekkatu fi par exemple kenn mënu ko fusiller. loolu Abdoulaye waxin la ñëpp waxin la kon kañ la wax wax bu jub euh, beneen bi ci topp mooy sama question si si <laughs> sama question dama koy ñëw ci ci Bassirou parce que. Euh, tey jii est-ce que yéen vous pensez pouvoir euh, remporter damay ñëw ci côté idéologie bi quoi yéen lii yi Sonko wax ba pare est-ce que yéen vous pensez remporter une élection présidentielle sans euh, sans une coalition où on va retrouver une classe politique que vous que vous que avez l'habitude de critiquer beneen bi ci topp mooy est-ce qu'on doit faire table rase de tout ce qui était fait pour avoir un système avec une république stable et une administration crédible. Mmh. Tounkara tu veux me donner une minute ma wax ci loolu <laughs> si c'est possible si c'est pas possible c'est pas grave. Euh, léegi doyen. Hmm. Euh, waaw vas-y. waaw lu tuuti rek c'est-à-dire je donne un exemple. yow mën nga bëgg def benn alliance avec moi. Hmm. mais parce que tu dis moi je ne suis pas là en réalité. du ma candidat du ma dara. Hmm. mais force bi ma am su la yow tu peux réaliser. Ah oui. objectifs. cest à tactique et à la fois. tu dis kii du dem mais kii ku wala ku mu nekkalu xëy na doo gagné li mu wax rek laa doon leer waaw ma ni moom du ku mu nekkalu léegi nag ma am alliance ak yow pour réaliser mes ambitions parce que xam naa ni mais je ne te promets pas ma jëlee dama lay jël nga reconduire yow le système que tu supportes loolu mën na am xel nangu na ko aussi du point de vue analyse ak approche waaw man euh, professeur xam naa ne lu aju ci euh, Ousmane Sonko dama fiy gisaat rek population sénégalaise bi euh, maanaam population la boo xam ne daal yàlla dafay def barke def barke bi mooy ñaare daal bu ñu bu ñu sentiree ne nit ki dañ ko néewal doole rek ñëpp dañuy daw wër ko. waaw loolu dëgg la. waaw parce que defe naa sénégalais yi man keroog bi ñu ko dàqee président kii affaire bu métti na ma. ñu dàqee. Sonko ci liggéeyam jour boobu. am naa lu ma métti trop. Hmm. dégg nga bon def naa Sénégalais yu bari aussi. Mm-hmm. noonu noonu la ñu mel. dalay fàttali rek keroog bi bi Ablaye Wade di yóbbu sa Seck ci kaso bi. waaw ajjuma jooju du ma ko fàtte. Mm-hmm. dégg keroog bi ñuy dàq Macky Sall aussi. Mm-hmm. loolu moo dellusiwaat dafay répété wu. léegi loolu nag euh, li si nit ñi di waaw Sénégalais population de l'histoire moo buggul kuy néewal nit doole bañ jàppee Khalifa Sall dëgg waaw loolu loolu la ko léegi nag bon Ousmane ci boppam man dama jàpp ne Euh, am na fu mu niroog fu mu ab Ablaye Wade mooy dañ ay nitu bayre lañu ay nitu bayre lañ damay dem keroog Daara Jolof dugg ci miir yegg ci bunt dëkk bi gis ci miir yi ñu bind Sonko maanaam imam bi ma kii ma ne ko mais kii bari na bayre de ndeke coowal Sonko li yegg si na ba Daara Jolof fiefu Aly Ngouille Ndiaye mm. c'est que bayre bi ah léegi télé yeeg rajo yeeg internet bi non non seulement xam nga ah, euh, politique politique ak coow ñoo ànd mm-hmm. waaye tey fi ñu toll nii bu doon da ngay lu ñuy lu ñuy tudd ak ki nga xam ne ay mbiram moom la nit ñi gën a jox solo di ko tudd sonkoo la dégg nga journaux yéeg télé yi Sonko Sonko man leen léeg damay taal télé na xaar ma seetaan débat bi déglu ko mais waa ji lu mu mën a wax dina teeree ci Sonko dina ko tudd mbaa mu mujjee ko mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu bayre la bayre boobu na xaw xawma lu positif la xawma lu négatif la mm-hmm. yàllaa koy def waaw dégg nga bayre boobu am na ko bon léegi man damay damay li may ñaan Abdoulaye Wade mu gudd fan mm. moom lay ñaanal kii yal ko yàlla aar. yàlla sàmm ko. ci benn côté mooy ab Ablaye Wade démb waxam ji. li ma ci gën a métti rek mooy lim ne après élection yi dinañ ko tëj. léegi ba Bachir waaw parce que tey da nit ñu bëri kàddu googu noonu nee nañ dëgg la am na ñu wax loolu yéen kàddu googu wàdd wax ne euh, président bi su gañee dina ko tëj loolu kàddu googu na ngeen koo déggee. ak lan la def ci yéen ak lan la def ci Ousmane Sonko ci boppam. beneen euh, beneen question bi may laajte. Mhm. Euh, léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo sos parti yi ñoom daanaka ñooy moom seen parti. Mhm. xam nga Ablaye Wade ak PDS. fi mhm. toll nii Wade moom moom parti mi. moo am mooy buur mooy bum mi. léegi ak bayre bi Ousmane Sonko am yéen yéen a tànn ne ko yow rek yaay feeñ. na ñuy wax ci yow li fa nekk ci cadre dégg naa nekkul ci benn parti. mais du ñu dégg kenn. sonko sonko sonko sonk hmm? da ngay liggéey waaw léegi loolu lu ngeen tànn la bu ngeen tànnee tamit est-ce que du ngeen ragal ëllëg ñu dem ba yëf yi ëpp doole. Hmm. ba nga xam ne moom mooy buur di bumi parce que nit nit kese la. aywa euh, tey euh, Basirou ni naa moom moo njëkk euh, njëkk laaj ñu ne yéen ñuy wax wàllum offre politique di ngeen di proposer Sénégalais surtout si wàllum koom wàllum économie lan la. xam nga Tunkara ñun au moins. def nañ loo xamante ne il faut nga remonté waat ba ci Abdoulaye Wade ci bu muy bind euh, un destin pour l'Afrique pour nga gis leader politique bu ko def ñi ñu bokkal tey langue politique bi yépp gisoo ci kenn koo xamante ne toog na xalaat ne Sénégal dafa am fu mu toll am ci vision par rapport ak fu mu ko war a mën a yóbbu mu bind ci ñëw présenté ko Sénégalais yi le 16 septembre bii passé président Ousmane ko dafa bind benn livre présenté ko Sénégalais mu tudd solution pour un Sénégal nouveau livre boobu au moins am na méritu wane sur le plan économique ñun lan lañ bëgg a def. lan la loolu. maanaam définir lu ñuy wax un modèle économique tey boo bëggee xam sa modèle économique lan la ban modèle économique nga bëgg a jël il faut nga xool yow fan nga toll. fi ñu toll mooy. non euh, léegi euh, Bassir bu ñu ko defee noonu peut-être na guddul euh, ni naa parce est-ce bi ngeen directement modèle économique bi directement mooy lan. mooy dañu am économie boo xamante ne lépp li ñuy soxla dañ koy jéggaani ñi dem jëndi ko muy benn boo xoolee li ngànk koomu Sénégal tey ci ay loxo euh, ñi nekk ñi euh, bitim réew la nekk une économie boo xamante ne ñi nekk bitim réew ñoo ko téye boo xoolee tey amuñu économie boo xamante ne day jël li nga xamante ne moo fiy meññee di ko transformer def ci de la valeur ajoutée door di koy exporter li ñu exporté yépp matière brute la modèle économique bi ñu njëkk a proposé mooy ñu fexe ba li nga xamante ne daf fiy meññee que muy jóge ci géej ga muy jóge ci mbéy ma wala muy jóge ci càmm ga mu nekk loo xamante ne dañ ko fiy liggéeyaat am produit yi ci génne ñu jël produit yooyu jaay ko mu gën a cher exemple bi ci président Ousmane Sonko di joxe tout le temps mooy di fii dañ fiy jëlee benn mango jaayee ko ay 500 francs wala sax kilo bi 500 francs yóbbu ko Dubaay goo xamante ne mango du fa sax ñu def ci ay canettes yu bëri ci kilo ga ñëw jaayaat ñu canette bu nekk quasiment 350 francs wala lu koy donc loolu moo tax koom gi mënta dox. léegi yéen pilier wu euh, modèle bi tey boo ko doon lim yan mooy pilier wu modèle seen modèle bu bees bi. principal principaux ñaar la maanaam le secteur primaire lii di mbay di napp di càmm ñu xool naka lañ ko naatale. ba ñu am suffisamment de production primaire bu ñu mën a transformer à travers des industries. deuxième bi. deuxième bi mooy industrie yooyu nag mooy le secteur secondaire bu ñu war a renforcer créer ay usines yoo xamante ne ñooy transformer lu ñuy jëlee ci secteur primaire boobu. bon euh, loolu mooy si euh, wàllum économie léegi euh, gis nañ yéen ñu attaqué seen ay militants fii ci Ndar déjà démbit gis nañ ko seen barab bi ngeen seen siège bi. ñu tojoon ko fii ci euh, Yoff loolu yéen ban jàngat ngeen si xam nga jàngat bi ñu ci am dafa commencé wul foofu sax fu mu commencé mooy bi ñu demee Ziguinchor kër yaay Ousmane Sonko di fa laaj pare parrainage yu candidat Ousmane Sonko bu ñu ko fa waxee Sénégalais yi mënuñu ko woon gëm tellement loolu xel mënu ko nangu. Mm-hmm. pourtant ñaa ñett fan ci gannaaw. Mm-hmm. gendarme bi fa duggoon teg nañ ko daan. ndax lu mu fa dugg di laaj ay fiche de parrainage kon lu ñu doon wax yëpp dëgg la mais yëguloo ne gendarme boobu daan nañ ko 3 mois avec sursis pour mm-hmm. abus d'autorité mm-hmm. Mm-hmm. buñ ko waxee dañoo ne amul même suñu saccage bi ñu saccagé suñu siège bi dinaa ci ñëwaat ci kanam man mii maa def live bi en direct ñu ne amul a ah, am na kay ah, parce que non dañ ne ñoom ñoo ko saccagé ñoo ko def est-ce que xam nañ ko. non xamaguñ ko parce que porté nañ plainte gendarmerie ñëw na enquête bi mu ngi suivre en cours te nii lañ ko def woon tamit ci fiche de parrainage bi ba feeñ na tey ñu xam ne ñun li ñu doon wax yëpp dëgg la. violence nag euh, dafa am loo xamante ne warul jóge ci parti au pouvoir parce que li xew Saint-Louis. ci parti au pouvoir la xewe ba euh, ñooñu seen gaañu yi méttiwul torop métti na parce que gaañu déjà bu jegee bët rek. Mhm. dal ci bopp rek mënatoo ko xeeb. te deret ñu ngi leen di euh, xam nga Sénégal politiciens yi le temps ñu wax ko. ñi fi nekk di def politique boo leen boo leen ci population totale bi ay lim gu neew la kon amuñu droit di perturber quiétude citoyen parce que euh, woote dafa dafa méttiwul. non nekk da woote. non loolu wax li nga bëgg. nit yi dimanche jot ñu dem. voté tànn ku ñu bëgg loolu jarul am na Bassirou dafa lu solo lu lu nit ñi dul bàyyi xel mooy tey yow soo ñëwoon nga rey junni nit mais taxul nga gagné élection yi. parce que élection yi li tax nga gagné ko mooy. Ah, say nit yow mobiliser nga ay nit ñu dem voté la. ñu compté nga gagné. kon ay affaire rey nit ak ay buntu xatal nit yooyu vraiment euh, lu ñu war a dépassé la euh, kii dafa laaj ba léegi nii naa nee na. Euh, gis nañ président Macky Sall moom li mu fi teg si wàllum social ay ay CMU ay bourse familiale te yooyu yéen da ngeen koy dàq yéen loolu boo leen ko fi jëlee lan ngeen fi teg. xam nga ñaari analyse lañ am ci couverture maladie universelle déjà te couverture maladie universelle bu muy ñëw am na lu mu fi fekk ñu ko doon wax plan Sésame. Mhm. mais conséquence yu ñaari plan yooyu yëpp. mooy hôpitaux yi dañoo daanu. parce que dañ leen sëf ay bor yoo xamante ne. ñi nga xamante ne sax dañuy dem ci hôpital bëgg faju am lu ñu fajoo mënatuñoo faju kon loolu ñu commencé noonu dafa wéy mënta wéy li mënta wéy nag dañ ciy taxaw saytu ko jàngat ko génnee loo xamante ne xam nañ ñi lii buñ ko tegee. dina mën a jëm kanam. est-ce que yéen xam ngeen par exemple hôpitaux yooyu bor bi ñu leen ameel ndax CMU xam ngeen ko. montant bi non instant yi mënuma la wax ne temps la. waaye parce loolu foog ngeen xam ko tamit parce que booy def analyse tamit benn mbir boo xam ne mi ngi fi nii ne këtt ne jonn ñu koy dund tey mun nga ñu wax lan mooy faiblesse am surtout nag en en terme de coût. non en terme de xam ne que le coût est chaque jour ñu ñu jox la estimation boo xamante ne dafay évoluer au jour le jour. parce que bés boo bés boo weesu rek. am nay montant yoo xamante ne c'est des malades qui il est évident que ñun ci diagnostic bu ñu def y a des yoo xamante ne génn nañ ci mais mënuma la wax ni exactement montant bi temps la. Ah, ça ne peut li ñuy wax foofu rek mooy Nina dafa laaj lu am solo. ci laay mooy tey suñu fi jëlee politique su politique sociale boobu ngeen di critiquer yéen à la place lan ngeen fay teg. li ñu ciy teg mooy système d' assurance parce que dëkk yi nga xamante ni yëpp réglé nañu seen couverture sociale sanitaire. ci système d' assurance lañ ko jaaree. maanaam ñëpp maanaam ñëpp am assurance maanaam yow ci bi nga. bi nga bi nga wéree. Hmm. mu xam nga xam ne feebar ak wér-gu-yaram ñoo ànd. que hmm. yow miy wéri tey ëllëg mën na nga feebar. ci bi nga wéree nag di liggéey di am xaalis di jënd ay di téléphoné di jënd ay yére di sol ci ngay xamee ne ni ngay soxlaa lool ngay soxlaa ëllëg faju nga am loo xamante ne dañ ko ciy com ci seen nga xamante ne yaa ko moom. di am foo koy teg. parce que xam nga principe boobu mun nañ si ànd ah bon mun na am ñu ko critiquer mun nañ si ànd mais tey soo ñëwee ni ñëpp dañuy am assurance assurance universelle est-ce que loolu du du dangereux gis nañ Obama ah président Obama doole bi mu amoon yëpp Amérique bi mu ne dafay indi Obama care gis nañ fu mu mujjee. Mm-hmm. tey est-ce que ngeen diggee loolu est-ce que loolu c'est prudent. c'est très prudent parce que lu mën a nekk la ndax santé dafa nekk. loo ne ñëpp yéen boo maanaam président Sonko bu faloo sénégalais bu ne dina am assurance maladie. xam nga assurance maladie souscription la. waaw cest dire du état mooy jël xaalis. ne lii maa ko teg pour ah, ñëpp di faj xeetal nit pour ñu dem uti assurance exactement parce que xam nga état dafa am loo xamante ne. mais bu boobaa dootul social. mais si social la. social la si social boobaa c'est libéral. non non xam nga social xam nga caractère social fan la ci nekk mooy déjà booloo la. système de mutualité la am na ci da ngay am part boo xamante ne yow boo feebaree li nga doon cotiser mu ngi ca mu am yow loo xamante parce que ñi même ñiy cotiser ñaanuñu yàlla feebar. donc ah, pendant que léegi est-ce que man maay maay souscrire man. à 100 pour cent wala état dafa am benn quotidien bu muy def nan lay ban mécanisme ngeen teg. loolu mooy mécanisme mix bi nag. Hmm. c'est-à-dire yow day am loo xamante ne yow dañ koy tey mu am ñoo xamante ne dañu leen di compléter. loolu ñaata la. pardon. ah lu leer laa laaj. ñaata laay teg ñaata en terme de pourcentage waaw quotité yi terme de pourcentage non ay si ay kii lu bëri la mun naa may ay déclinaison yu bëri. c'est-à-dire tey ah, boo jox ñu tamit nag lu chiffre bu concret. nag non mënu ma la jox mënu chiffre bu concret. oh parce que tam boo ñuy wax affaire assurance affaire quotidien tamit il faut mu am ay pourcentage. Ah sinon rek mais xam ah. non dafa am lu muy du la jox lépp day am lu muy denc. ah mais ñi wax waxu far non non non ni naa ni naa mënuma ànd ak tamit. non nga ànd ak man dans la mesure où. yoonu yokkute dafa mujj nekk PSE te président Macky Sall waxuñu woon ne PSE lay mujjee fay ay experts ay milliards pour ñu def ko léegi xaaral professeur xam nga fi ñuy wax mooy xoolal waxuñu affaire PSE li may wax mooy non non li ma la rek une minute professeur li ma li ma bëgg a wax mooy bu ko neexee mu ne la lii laay def mais du ma dugg ca ca lépp parce que bëgguma ñim xam ah, bu ko neexee am na ci droit bon kon doon jox bi chiffre bon mun nañu avancer ni naa euh, kii na léegi programme auto emploi moom la euh, Khadija wax euh, yéen loolu nii waaw loolu am na solo. Ah, am na solo am na solo. non normal mu jàppale. <laughs> même pas bon léegi Basirou. wàllum auto emploi parce que foofu man man du ma ànd ak nii naa du tout. tey boo ñëwee ne da ngay jiite réew mi ne yow da ñuy proposer assurance mais war nga ñu wax de manière concrète et précise lan mooy déclinaison. xam nga non c'est très clair su Tunkara nee naa la tey état mooy jël yëpp couverture maladie universelle sauf ko boppam noonu la demee woon ci ce plan Sésame doxul ma ne la ñaar moo am da ngay jël un système d'assurance santé que dëkk yi nga xamante ne yëpp réglé ñëw la question de la couverture maladie. et des de de de de de la couverture sociale sanitaire foofu lañ ko awale bu ma neexoon nga ne ma naka nga naka lañ koy distribuer ma ne la malade bi wala la kii souscrire mën na souscrire à 100 pour cent. si seen programme la ñu laaj de. pas bu la neexee yow seen programme lan moo si nekk. mais programme bi day ubbi ay fourchette justement loolu lay wax ni c'est-à-dire dama leen programme day ubbi ay fourchette. fourchette bi yow mën nga souscrire selon li nga mën à 80 mën nga souscrire à 60 pour cent mën nga souscrire à 50 pour cent étant entendu que état mën la wax ne dama lay téyel juste 20 pour cent laa lay yokkal. boo bëggee am loolu moo nekk ci seen programme. boo bëggee am 100 pour cent. nga nga nga nga nga nga ñu téyel la quatre ñu fekk ne état dugalal na la 20 pour cent yow nga jël 80 pour cent yi complété. loolu moo nekk ci seen programme. loolu loolu c'est-à-dire ñun principe principe. distribution entre la couverture et la complément et le complément que l'État andi loolu lañ loolu la ñuy teg léegi nag dans toutes les politiques sociales boo ñëwee am na loo xamante ne tey parti politique bu nekk dans l'opposition avec la rareté des données et des chiffres am na loo xamante ne dangay ngay annoncer le principe am loo xamante ne da ngay teg ay déclinaison mais dans la quantification exacte yow loolu mën nga mën nga bàyyi le champ ouvert parce que ay acteurs sociaux yu bëri la yoo xamante ne boo demee bay def la mesure de façon concrète il faut que mu am ay négociations yoo xamante ne mën na déboucher sur plusieurs fourchettes. benn benn candidat fi su fi ñëw ma laaj ko di ko laaj mu ne vous êtes teigneux vous bon j'ai <laughs> léegi est-ce que yéen seen programme. Mm-hmm. chiffres yi nga joxe euh, vingt quatre-vingt cinquante cinquante trente soixante-dix yooyu da ngeen ko dëxëñ ci seen biir programme. waaw wala déet. ñun principe li. Ah, principe bi ngeen joxe mais assurance bi lañ teg. léegi beneen bi euh, ni la Khadija dafa laaj affaire euh, auto emploi doyen Daouda Diop tamit euh, ñëw si. Mm-hmm. foofu lan ngeen ñu mën a wax parce que état ñu ñëpp xam nañ ni tey pour leeral rek état mun na joxe lu tolloog deux cent mille emploi mm-hmm. mais ñiy soxla liggéey yëpp mën nañ quatre million te donc. Euh, yeneen euh, entreprise yi mun nañ joxe tamit deux cent formel mun nañ joxe tamit deux cent mille emplois disons cinq cent mille emplois euh, formels. c'est la totalité des emplois du secteur moderne et du secteur de l'État réunis formel mooy cinq cent mille formel alors que ñi soxla emploi tey mët nañ ay cinq millions. léegi kon auto emploi moom kenn du naataable ni lu am solo la léegi yéen foofu lan ngeen si wax. mais xam nga auto emploi déjà boo bëggee régler problème emploi doo jaare ci ay recrutement ci état parce que recrutement état c'est loolu la ñu wax donc ñun ñu teg ci misaal rek ñaari mbir ñun dañu jàpp ne que aujourd'hui problème mu financement problème mu formation problème mu encadrement moo tax ñu am un taux de mortalité des PME PMI qui avoisine 70 à 80 pour cent cest à boo toogee tey lii créé ay entreprises Sénégal bëri na mais 70 pour cent entreprises yu ñu créé yëpp duñu du ñu continuer dañuy dañuy dañuy dee. au cours de après de temps. à trois ans. deux à du du sori. lu néew vraiment. loolu moo tax ñu ne ñun bu ñu ñëwee dañuy andi ce qu'on appelle des fonds sectoriels appelés fonds patriotes. fonds patriotes. premier fonds lu muy financé mooy PME PMI à hauteur de vingt cinq milliards par année deuxième fonds. Hmm. le fonds patriote start boobu ñu nekk ci start-up yi lay financé à hauteur de quinze milliards par an. troisième fonds le fonds des artisans boo xamante ne ñoom lay soutenir seen financement la à hauteur de dix dix di millions dix milliards. donc chaque année dinañ injecté lu mat cinquante milliards ci financement entreprise yoo xamante ne dañu leen di encadrer. Euh, permettre leen tamit ñoom ay incitation fiscale yoo xamante ne période de mortalité boobu nga xamante ne dafa dafa dafa dafa grave pour ñoom ñu dépassé ko mais uh-huh. li li li li am solo aussi mooy euh, mesure d' incitation fiscale yoo xam ñaata emploi ñoo nekk ci kanam lii parce que lii c' est vingt plus quinze muy quarante plus muy cinquante milliards loolu boo leen ko. par année par année. sur boo leen ko injecté par exemple. sur les cinq ans ça fait deux cent cinquante milliards. ok léegi loolu boo leen ko injecté euh, at bu nekk ñaata ngeen jàpp ne si la ay emploi ñoo si nar a judd. fu mu nekk nii ñun jàpp nañu loolu bu ñu ko injecté au moins chaque année dinañ créer lu mat cinq soixante dix mille emplois. cent soixante dix mille emplois boo ko multiplier par cinq par euh, cinq ans muy ñaata. cinq fois 7, 35. J'écris 5, je retiens 3. 5 fois 1, 5, plus, plus, plus 3. 850 000 muy 850 000 emplois. Donc yéen si 5 ans yi fas ngeen yéen a créé 850 000 emplois. En chiffre léegi am nañ chiffre. minimum chiffre ngoog de. te nee na minimum la. bien c'est un minimum léegi beneen bi mooy euh, wàllum justice wàllum yoon. Mhm. Euh, Khadija ba léegi nee nañ euh, dégg nañ ñu bëri di jàmbat yoon tey. Euh, dafa mel ni nguur gi dañu see teg seen loxo ñu bëri kontaanuñ ci seen yoon bon keroog dégg nañ suñu collègue euh, Ismaïla Madior Fall ministre de la de la justice mu ne de toute façon amul benn réew si àdduna bi boo xam ne ñi ñuy jiite. kontaan nañ ci justice mm. ah boo joxe ne sax euh, Amérique nee na foofu boo demee da nga gis ni am na justice pour ñi am ak justice ñi ñàkk mm. bon léegi yéen si wàllum justice yan lan ngeen xalaat def ba citoyen yi gën see gis seen bopp man je pense que bi ñu defee réforme euh, bu ñu voté référendum bi bokkoon nañ ci li liñ ci promettroon plus d'indépendance pour la justice. Mm. ñu def deux mois magistrats union de magistrats du Sénégal génn kaas ne ñoom amuñu amuñu indépendance kon li ñu waxoon ci référendum bi yépp mesures yooyu permettre ñu am plus d'indépendance de la justice. parce que li bokk na ñaar ci seen principale euh, revendication pour ñu dem vers plus d'indépendance de la justice. mooy un que président de la république bañ tey jiite le conseil supérieur de la magistrature parce que foofu la ñuy gérer seen carrière loolu engagement la bu ñu jël ci suñu programme. Mm-hmm. deuxième engagement la tutelle fonctionnelle du ministère de la justice sur le parquet tey procureur de la république mën nga fa dem plainte lu la neex lu ne fang. bu bëggee ne bërit jóg ministère de la justice ne ko tax toogal mu toogal. parce que mooy seefam. exactement loolu aussi mënoo am une justice boo xamante ne distribution bi dafa équitable tant que réglé woo ce problème là. Euh, loolu engagement euh, la Mimi Touré bi mu fi nekkee ministre de la justice ñu doon wax yooyu moom dafa ni kenn du fi créer république des juges. parce que loolu bés boo ko xasee ba def juge yi nañ am doole boo xam ne daanaka dinañ buum di buum te loolu duñ ko naw mais parce que à côté dafa am loo xamante ne dañ koy teg mooy une inspection. général de l'administration de la justice. loolu amagu fi. mais am na fi mais hmm. dañu ko war a renforcer ci ay ah, pouvoir d'investigation am noo xamante ne bu juge yi doxee lu dul yoon tamit parce que juge c'est des justiciables hmm. c'est-à-dire il faut que nit ñi bàyyi bu ñu jëlee ay engagement sur le plan de la euh, réforme de la justice pour plus d'indépendance toog ba pare xam ne lu ñu wax lu ñu diggee woon wàccewu ak wàccoowuñu ak ñoom ñuy wax ne du ñu créer république des juges kon daal yéen ñaar daal bu njëkk mooy conseil supérieur de la magistrature président la république dootu fa toog benn dàq nañ ko si biti beneen bi mooy euh, dina am euh, euh, ñu gën a dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu juge yi ba moytu mooy am ay abus de pouvoir ak dégg nga maam atte lu dul yoon ak yooyu bon léegi beneen bi mooy Khadija moo ko laaj ba léegi ne président Ousmane Sonko def na ay déclaration ne ñi nga xam ne dañu bëgg ànd ak moom waruñu xaar ba mu faloo ñu ñëw di ànd ak moom est-ce que loolu du ko gàllankoor. xam nga ku nekk ni ngay ni ngay. ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay doxalee ni ngay doxalee en ci opposition. Mhm. boo demee ci pouvoir boo moytul lu bëri dina ci dina dina feeñ ne que lii nuyoo woon na ci ngoro la buñ ko mënee waxee noonu. ñun bu ñu lu ñu woote mooy kuy ñëw ci suñu engagement. Mhm. maanaam Pastef da ngay ànd ak lu ñuy wax le don de soi par pour la patrie c'est-à-dire foog nga jël sa bopp jéebal ko Sénégal. moo tax saa ñuy waxtaan loolu ngeen def loolu lañ def moo tax saa ñuy waxtaanee loo xamante ne question de parti la Sénégal lañuy njëkk a jël teg ko ci table bi te loolu ñun bañuñu mu xañ ñi ñoo xamante ne bu ñu àndeek ñun tamit ci ci ci ci anam yu ñu bëgg ñoom bu ñu demee ba ca biir tamit dañu xam ne dañu. léegi li ngeen di jàmbat mooy euh, système bi yéen ànd leen seeg yooyu te tey président Ousmane Sonko. avant euh, avant may ñëw ci système bi. ci sur la même question même laaj bi la rek parce que Khadija dafa wax ne euh, ëllëg président Ousmane Sonko war na dem taseeg président Wade loolu yéen est-ce que du contradiction non du contradiction parce que ñun dañu am bu ñuy daan créer suñu parti lu ñu doon wax la charte des alliances et des coalitions. Mhm. nekkul na rek dafay dem toog ak Abdoulaye Wade rek lu mu dese de loolu mooy am. parce que suñu waxtaan daal suñu parti dafa doxewul doxewul noonu sax mais Abdoulaye Wade mënul def 26 ans d' opposition def 12 ans de pouvoir am 94 ans daanaka boo jëloon. âge yokkal nga ko benn de 94 âge Ousmane Sonko boo ko jëloon tey daanaka xaaj ko ñaar Abdoulaye Wade nga jox ko kii benn waa benn benn moitié mooy weesu atu atu atu Ousmane Sonko. Mm-hmm. kon kooku Ousmane Sonko am na lu mu fa jëlee ci conseil. am na lu mu fa jëlee ci njàngat. am na ay ñaan yu mu fa jëlee. ñaan loolu mënta ñàkk parce que mag la benn. ñaanu mag de mën na nangu moom moom lu wér. bi ci tegu mooy. mag yàlla du ko topp dara. lu wér bi ci tegu mooy. mag day nangu. question de d' alliance et de coalition boo xoolee am na sax question yu ko la am na ay question yoo xamante ne jaar nañ ci. Mm-hmm. mooy comment se fait que ñu bëri ñëwuñu ñu ànd ak ñun. Mm-hmm. ndax loolu du affaiblir suñu coalition am na ñoo xamante ne ñun bu ñu nangu woon ñoom lu ñu bëgg. Mm-hmm. kon ñu ànd ak ñoom. comme kan non du ma nekk di tudd tur parce que amul importance am na ñoo xamante ne ñëw nañu ñu waxtaan ak ñoom ñu dem ba ca biir ne ñu bu ñu ñëwee lii la ñu bëgg. Hmm. ñu ne leen ñun lu ñuy waxtaanee suñu ànd Sénégal la ñuy teg ci kanam waaye duñ ci teg. lii nga lii lañu lay jox lii la ñu lay jox lii la duñ ko def parce que pour ñun Sénégal du gâteau. yéen fu mu toll nii ñan ngeen kan moo ñëw si seen coalition. tey euh, ci recalé yi Boubacar Camara nga fa. Boubacar Camara waaw. Euh, am nekkoon nañu ak Bruno D'Erneville. Bruno nekkoon nañu ci recalé yi toujours euh, Yacine Fall. Yacine ñu ngi ak euh, Madiaye Mbodj. ñu ngi ak RND. ñu ngi ak Teranga Sénégal ñu ngi ak Jot sa réew. Hmm. ñu ngi ak sa seen mouvement sax ñu ngi fa defar. Hmm. donc plein d'autres mouvements yoo xamante ne ah. ñëw nañ fekk defar. <laughs> defar mooy kan. bu ma defal mooy bu professeur. yëgu ma ko. ah ah, ah, ah, ah man de ma ko. yëgee ko fii man de yëgu ma ko. yëgee ko fii. ah man de yëgu ma ko. yëgee ko fii te xanaa xanaa xanaa du ma jiite mouvement boo xam ne yëgu ma xam nga ah loolu yëgu ma ko. daa ma ko yëgal baal ma yëgal la ko. professeur xam nga invité woon nañu la le septembre pour nga bokk ci présentation bi. Hmm. maa la woo. Hmm. te même après le 16 septembre toog naa ak yow. Hmm. ñu àññandoor. bi nga mënulee ñëw am na ki ma jox numéro hmm. kooku moo la fa téewal hmm. kooku ñëw na seet si ñu ak yeneen membre mouvement bi hmm. ne yow yaa demal sa bopp si Macky Sall waaye moom ci ñun lay ñëw ah waaw bon euh, léegi xam nga loolu xam nga loolu amul sa ndigal eh? ah, kooku amul sa ndigal ah, loolu mooy problème bu parti politique yi bon ñun ñun amuñu parti politique ak mouvement yi non non non non lu tax lu tax ah non bàyyi mu question bala muy dem mouvement ah, non non ni naa dafa day day saboté baax na am na solo. mais euh, professeur j'ai une autre question s'il te plaît. pas sur pas sur ça. non non bàyyi mu leer pas sur <laughs> emploi bi ci emploi bi ah nga baal ma passé nañ ko. pour moi cinquante milliards li ngeen wax dafa tuuti et le ce le Sénégal attend de réserve financière. avec les mines avec le pétrole et tout fait que vous prendre des engagements yu gën a fort mhm. parce que fu ngeen mënti dem Sénégal a une crédibilité qui lui permet de s'endetter à un taux maintenant que tu négocies pour que mën joxe ko à des crédits qui ne dépassent pas 6 pour cent donc tuuti la waaw c'est à titre indicatif rek. non non non non non taxawal taxawal non non non fii fii d'abord. non non non Bassirou. non non fii lii dañuy delluwaat ginnaaw. non non parce que justement oui mais moom moo ko may mu rebondir wax loo xamante ne dañu ko bàyyi mu jàll. parce que bi ngeen doon poser seen question ci auto mm-hmm. emploi ngeen ko poser. waaw léegi est-ce que mën nañu def dara man waxuma la ci garantie souveraine yoo xamante ne. Mm. dañ koy jox les grandes entreprises pour ñu mën a attaquer chantier yi nga xamante ne tey ay étrangers yi ko koy def muy ay chantier waa très bien léegi mun nañ aywa Bassirou mun nañ def dara léegi mun nañ avancer si euh, laaj yi après ñu mën a euh, indi yeneen leeral yi léegi euh, doyen Daouda Diop ba léegi dafa laaj wàllum entrepreneuriat féminin wàllum jigéen ñi yéen foofu lan ngeen si lan ngeen si xalaat. jigéen ci côté entrepreneuriat kese. déjà mécanisme yoo leen prévoir pour ñoom. non am na lu ñu identifier comme loo xamante ne day gàllankoor entrepreneuriat féminin ci côté femme. boo demee par exemple ci côté rural surtout jigéen day am problème ak am suuf maanaam moomal ko seen bopp. accès au foncier mm. loolu il faut mu nekk loo xamante ne moom ngay njëkk a régler parce que lu ñu boo leen dee financé lu ñu nar a injecté yëpp généralement ci foofu la foofu lay nekk à la base soit dañuy tabax foo xamante ne lu ñuy defar foofu lañ koy defar wala ñu dem béyi loo xamante ne fa fa lay jóge donc on a deux trois leviers yoo xamante ne pour. euh, la promotion économique des femmes l'accès au foncé ci la bokk mais l'encadrement ak formation ñu mën a gérer seen bopp ci la bokk ak financement pour ñu mën a am seen autonomie autonomie. ak léegi euh, euh, beneen bi bi kii laaj ajara laaj mooy relation bi Ousmane Sonko am ak euh, presse bi moom dafa gis nii bon tudd na fi sax benn tour kooku Sadiq Top bu bind benn téere yan leeral nga bëgg indi si relation yooyu. Ah, déjà man je pense que euh, exemple bu mu jël muy Sadikh Ababacar Sadikh Top euh, déjà dafay wane ne bu fekkee ne dañ daf ko jël rek classé ko dans ci ay relations entre ay relations yu baax la. parce que livre bi Ousmane euh, Sadikh bind boo déggee titre bu mu wax da nga xam litre buy livre buy def éloge engagement Ousmane Sonko la Ousmane sonk amul benn xaar ma yàlla ak journaliste yi. ok amul boobu boobu leer na léegi euh, est-ce dafa am. Euh, professeur euh, non Adjara non on va avancer quand même s'il te mais gis oui vas-y non mais vraiment il faut me laisser m'exprimer parce que dañoo gis ni que ni am na si ay journalistes yi nga xamante ni ñu ngi topp caravane son bi ñoom lu ñuy wax la plupart la ñuy wax. voilà Ibou Baldé c'est un exemple wax ni que ni yi nga teg bon c'est vrai que reporter fi mu la yóbbu fa mën dem mais si. Euh, li ngeen bëgg wax ni rupture même avec la presse même avec le euh, avec li nga xamante ne war ngeen ko wàccoo seen diggante ak presse bi pour un minimum de respect ça ça ne se respecte pas lan moo amul foofu lan lan moo tax ñu naan amul respect. waaw ñoom nee nañ ils sont pas dans de bonnes conditions déjà pour seen sécurité. Hmm. on parlait tout à l'heure si attaques yi nga xamante ne ñu ngi am te xam nañ ne que reporter en général ñoom ñooy fekkee yi ni mel y a aussi un problème de planning par rapport ak Sonko puisque nu muy muy demee di dem si yeneen gox yi ñoom journalistes yi ñu si bëri dañu nekk en décalage ak moom lu muy lu muy def. donc y' a y' a un petit problème xam nga mais mais c' est un la je veux dire. loolu dañ ko war a waxtaanee est ce que loolu moo nekk lan ngeen ci mën a andi. je suis désolé euh, soxna si mais mënoo ko classé ci manque de respect xam lan moo am des conditions difficiles dans lesquelles ñu ngi battre campagne. parce que hmm. moyens yi ñuy limi c' parce que sàcc ñu xaalis gisuñu kenn koo xamante ne daf ñuy jox xaalisam di xaar ci ñun ñu defal ko loo xamante ne loolu la bëgg. bëriwu leen xaalis donc bëriwuñu xaalis. dañ leen laaj xaalis. seen budget campagne ñaata la. xam nga condition non ah. budget campagne du ma la ko wax moom. ah lu tax parce que du ma la ko wax du fii laa koy waxee. foo parce que bu ñu demee ba pare ngay doog a xam suñu budget campagne boo xoolee suñu état financier parce que ñun chaque année. dinañu def suñu état financier yi déposé ko ñun sénégalais yi bu nit ñi dem campagne duñ ñu wax par exemple président Macky Sall dégg nañu ñu ne moom teg na 3 milliards. Ah, na ëpp lool. xam nga waaw mais non au moins xam nga wax nañu chiffre. au moins ça ça ça veut rien dire yéen nag yéen yan chiffre ngeen ñu jox. joxuñu leen benn chiffre justement. mais loolu est-ce que am na transparence mais am na transparence parce que la seule ressource boo xamante ne foofu lañ koy dem xoole ji ndax transparent na wala déet mooy li ñuy déposé ministère de l'intérieur te buy Pastef sosoo ba léegi ñu ngi koy def budget mooy lii laa ci fas yéene dugal. mën nga am un budget de 6 milliards te fi nga yaakaar ne foofu ngay jëlee koppar pour pour pour pour kii sa budget amuloo ko donc budget ça veut rien dire il faut que ma taxaw ci lu mu wax par rapport ak conditions yi condition tant que politicien budget am na wax budget amul njëriñ c'est pas bon pour un parti politique hmm. le budget c'est une prévision de dépenses pour satisfaire les besoins des citoyens hmm. soo amul njëriñ c'est une faiblesse chez Sonko il faut le lui dire il ne faut jamais dire ça et tu peux dire qu'on ne décline pas notre budget pour les raisons que tu as évoquées nous sommes d'accord mais budget amul importance bu ko waxati mukk ci àddina xam nga dama leen budget wax un chiffre ne lii mooy sa budget xam nga def na prévision de dépense après nga doog a dem uti recette xam nga lan moo am solo en fin de compte bu la neexee nga ne man sama budget campagne quatre-vingt-dix milliards la ci sax bi campagne bi di commencé nga ne dinaa ko lever nga dem nga retrouver ak quatre-vingt-dix ah, millions lu tax doo leen ko wax. mais parce que amuñ defuñu option ñëw di wax suñu budget mais lu tax ngeen koy nëbb nëbbuñu ko dañuy bàyyi ba pare. ñu def suñu dépense yëpp fu mu toll ñu ne leen lii la bu ñu demee élection prévision bi la ñuy wax prévision kay du boo jeexalee nga koy wax prévision avant nga koy wax prévision bi ko wax nag parce que suñu option mooy duñ ko waxee ah mais loolu day am na boo de mais c'est pas important parce que en fin de compte bu ñu paree li ñu dugal yëpp li wax ne lii la bu ñu demee c'est important parce que élection législative bi bu ñu ca demee waxuñu kenn suñu budget lii la mais bu ñu demee b mu jeex bu ñu def suñu compte dañuy wax ne ñun en tant que parti politique lu ñu dugal ci élection législative yi 27 millions la ñu teg tuuti. ñun ne waxoon nañ suñu budget bi ñu tàmbali 3 millions. seen option la. mais parce que. Euh,